sëriñ cheikh coro mbàkke sëriñ cheikh coro mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1924 ci dëkk bu ñuy wax nag jet calaw nekk nag ci département bu jurbel ci dëkk boobu nag la feeñee jamono ci atum 1924 di doomu soxna Lalla Njaaya ak sëriñ cheikh sa Mbàkke am na nag kum mu bokkal soxna Lalla Njaaya ak sëriñ cheikh sa Mbàkke muy ku ñuy wax sëriñ mbàkke Lalla ibnu soxna Lalla Njaaya ibnu sëriñ cheikh Absa Mbàkke sëriñ mbàkke Lalla benn doom nag la fi bàyyi muy ku Mbàkke soxla Lalla Mbàkke mii nag Kaolack nag la nekk sëriñ Mbàkke Lalla moomu la sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag bokkal soxna Lalla Njaaya ak sëriñ Cheikh sa Mbàkke laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ñu wax leen nag njaboot gii mu bokk nag ñoom ñooy ñan ñana soxna Lalla Njaaya doomu soxna Gànna Jóob la soxna Gànna Jóob doomu Lat Joor Jóob soxna Gànna Jóob mii nag maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul diina nag moo ko dëkkoo woon ginnaaw nag bu mu jógee nag ci àll Njaaya ba Alburi Njaay la Alburi Njaay mi itim nag ginnaaw Alburi Sàmba Lawbe nekkoon na itim nag buur ba Jolofa waajuram wu góor nag moom Serigne Cheikh Coro Mbàkke Serigne Cheikh sa Mbàkke la Serigne Cheikh sa Mbàkke doomu Maam Mor Anta Sali Mbàkke la ñii nag ñoom ñooy ay waajuram bu mu feeñee jamono nag ci atum 1924 waajuram Serigne Cheikh Coro Mbàkke ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasool nag la ko yëgaloon Seexul Xaadim nag di ko xamal ne na ko tudde nag magam ja Serigne Cheikh Mohamed Khalifa Mohamed Khalifa moomu nag ñu gën a xam nag ci sëriñ Cheikh Thioro Mbacke bi mu feeñee jamono ci atum 1924 waajuram nag soxna Lalla Ndiaye nag dafa génn àdduna ginnaaw bu Cheikhul Khadim yëgee ne nag soxna Lalla Ndiaye na àdduna Cheikhul Khadim nag moo laajlu kan moo a jege nag soxna Lalla Ndiaye ñu di ko xamal ne nag waajuru soxna Lalla Ndiaye di soxna Gànn Jóob nag mi ngi fii Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina itam nag moo ko dëkkoo Cheikhul Khadim nag laajoon na kan moo fa nekkaat nag ku gën a nekk mbokkam ñu di ko xamal ne nag soxna ci kër Cheikh Ibrahima Fall ci ron magam nag soxna Gànna Jóob waaye soxna Aminta Jóob moomu nag mus ta dem kër mus ta amitim nag la ko nag laaxub koraay ko joxee laaxub koraay ba nag ba soxna Aminta Jóob nag jëfandiku ci nag ba noppi la weenu soxna Aminta Jóob wa nag bënn Cheikhul Xadim nag di ko xamal ne na nàmpal nag Sëriñ Cheikh Coro Mbàkke mii soxna Aminta Jóob moomu nag booba nag mus ta dem kër mus ta am dooma ginnaaw bu mu ko nàmpalee nag ay fan yu néew nag la Sëriñ Tubaa Cheikhul Xadim woolu soxna Faati Tuuti Tuuti Diop booba nag soxna Faati Tuuti Diop mi ngi ak Cheikh Mourtada Mbacke moom Xaadim Rasool Serigne Touba Cheikhul Xaadim nag di xamal soxna Faati Tuuti Diop booleel Serigne Cheikh Coro mi ak Cheikh Mourtada Mbacke nag yor ci loxoy soxna Faati Tuuti Diop nag la nekk nag ba ni mu bàyyee am soowa moo tax nag Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina daana wax ne Serigne Cheikh Coro lii rub Cheikhul Xaadim la ndax kii maan gi nga xam ne nii nag Cheikhul Xaadim def na ko ci bi mu feeñee jamono bi mu feeñee jamono rek la waajuram soxna Lalla Njaay génn àdduna Cheikhul Xaadim nag woolu woon maamam soxna Aminta Diop booba nag soxna Aminta Diop nag mi ngi ci kër Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina magu soxna Aminta Diop bi meññi soxna Lalla Njaay di soxna Gànna Diop nag ma nga fa kiimaan googu Cheikhul Xadim def nag ci soxna Aminta Diop moo tax Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina daana wax nag Serigne Cheikh Coro liirub Cheikhul Xadim la ba tax na itam nag àdd yu takkoo takkoo takku nag Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina nag jox na ko Serigne Cheikh Coro ngir kiimaan nag gi Cheikhul Xadim def ci moom mu nekki nag ku kiimaane nag ki ak ndawam ndax jëf ji Serigne Touba Cheikhul Xadim nag jëf nag ci mooma xaasiya bi ko Ahmadou Bass defal mag ñuy xamal nag feeñuk jamono sëriñ Cheikh Coro Mbàkke njaboot gi mu bokk nag meññi ko ñoom ñooy ñan kiimaan gi am nag ci bi mu feeñee jamono nag ci atum 1924 teel a ñàkk nag gum teel a ñàkk nag waajuroom wu jigéen te sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag woowoon maamam soxna Aminta Jóob toggal ko nag ab laaxub kuraaya ginnaaw bu mu ko toggalee laaxub kuraay ba noppi nag la soxna Aminta Jóob moomu nag am am soow nag moom mën a nàmpale sëriñ Cheikh Coro lu baree baree bari daal la ñu sëriñ Mbay Baas nag di nettali ci feeñu jamono sëriñ Cheikh Coro Mbàkke mii ñu teewlu nag sëriñ Ahmadu Baas mii qaala alfaqiru abidurrahmani ahmadu baasi axarul insaani bismil ilaahi wasalaatu wasalaam ala nabi waxbal ilaahi sal xilaam wa baxdu maa ngi taarixal ab yaaram wura cosaan ku ñëpp xam ab taaram kookaa di siñ seex coro jantum njooloo njaccaari bur yàlla du maasum xelleer sa diiti garmi ak cër wilaaya la boole woon moo tax mu raw ca gaaya mooy doomi Cheikh Xabsa wa soxna lal la maamam ju baax ja am na mbóoti yàlla sëriñ Mamar Anta Sëre jur baayam Lat Joor jur maam Gànna yaay yaayam al buurub penn njaay ma def buurub jolof mooy bàyyi soxna lalla garmi yee walif maam xab samam jaxate yaayi baayam mooy càmmiñal xaadiba fii doy naayam wax naa la tuut ci askanam ma wax la fam feeñe ngir nga xam ne mbur mu mag la feeñe na fa njiit salaw fa suufu njaareem sa dam sa sin àndaale ay jalooreem ndeyam ja làqu bàmba foofu jibbal ko maam soxna mbéye moo ko yar nampal ko cheikh murtada mbakkee di am nampaaleem ñoo bokk wenn wa loolu wóor na Cheikh ba woolu maamam Aminta Jóob mooy mbokki yaay yaayam ba mu ñëwee sëriñ ba dal ko laaxal laaxu kuraay mu lekk wen ya jooxal fekkoon na maam Aminta mus la am doom Bamba ko jox sëtam ba am na am koom Cheikh ba feeñal na karaama daar daar ca weeni maam Aminta doy na ak waar moo tax ba sëñ Cheikh Coro soowum baatin la nampe ca maam ja rëy na baatin Cheikh Ibra Faala njëkk jël hidaaya jox ko sëriñ Cheikh Coro raw na gaaya moo njëkk a ràng nag wu ànd ak doom jébbal ko sëñ Cheikh Coro moo roñ koom daana ko hidaayaal ba tey ay ngurdu ca bépp bis Cheikh Coro moo di fardu te moo yoroon maamam ja soxna Gànda Jóob ci ndigalal Cheikh bambalam ba duñ ko luub ba mu amee juróomi xatti shaahir la waa waajuram Cheikh Absa laqu ndaw mbir moo teel a def jirim te teel a am jom kenn mënu koo gàkkal amul ko koy jam bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ cheikh absa mbàkke moo ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax nag njalab jox ko fa nag ku ñuy wax sëriñ ma silla njalab sëriñ ma silla njalab mii nag moo dalal alxuraanul karim doomu sëriñ cheikh absa mbàkke bii ginnaaw bu mu jàngee nag ci dëkk boobu nag di njalab sëriñ ma silla njalab laataa muy mokkal alxuraanul karim nag bàyyi koo na fa cheikh murtada mbàkke mi nga xam ne nii nag moom la sëriñ tubaa seexul xaddim boole woon ak moom itam nag waxoon soxna faati tuuti jóopa mu boole leen yor Moustapha Mbacke moomu nag moo ko jël si nag ci ak ndawam ñoom ñaar ñu ànd nag dem nag ci dëkk bu ñuy wax Kër Ahmed ñëwel ñu nekk fa nag di jàng ba ci atu 1939 ci atu 1939 nag bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag sancee dëkk boobu nag di Taïfa ba Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag demoon fa doon ziyaare ji nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bi mu dëppee nag la jaar nag ci dëkk boobu di Kër Ahmed ñëbel doon xoolaale itam nag rakkam jooju nag Cheikh Mourtada Mbacke ba mu eggee nag la fa gis Serigne Cheikh Thioro Mbacke mii nag itam di rakkam mu dul faadal mbàkke itam nag moo sàkku itam nag ci rakkam cheikh murtada mbàkke di ko xamal ne sa seexandoo bii di sama rakk itam sañoon nag danga ma koy jox itam nag ma féete woo ko ndax melokaanam ak jikkoom itam nag neex na ma cheikh murtada mbàkke itam nag wéyaloon na nag ndigalul magam lool nag di cheikh mamadul faadal mbàkke jébbal ko nag seexandoom boobu nag di sëriñ cheikh coro mbàkke sëriñ cheikh coro mbàkke nag ñëw nag ci loxoy cheikh mamadul faadal mbàkke bi mu ñëwee ci loxoy cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke nag moo ko yóbbu itam nag ci dëkk bii nag di ndindi jox ko fa nag ku ñuy wax sëriñ Demba Korka Sëy sëriñ Demba Korka Sëy moomu nag moo eggaleel ak njàngum alxuraanum sëriñ Cheikh Coro Mbàkke mii ginnaaw bu mu jàngee alxuraanul karim nag ci sëriñ Demba Korka Sëy mii la ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke jébbal nag sëriñ Mbàkke Buso mu nekk nag ci loxoy sëriñ Mbàkke Buso ba mu fa jógee la ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag yóbbu nag ci daara ji mu fas yéenee tarbiyu nag ngir wut ngërëm mbooleem daara ju Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke sanc nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke mii nag dem na fa nag ngir wut ngërëm moo xam daaray Tuubaa Bogo daaray Tuubaa Touba Aliya ba ci daara ji Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag amoon itam nag ci ñànka mu nekkin nag ku gëm Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ku topp itam nag ci ginnaaw Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ni ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke gërëme nag ci ginnaaw bu jumaay Touba ji nag ci atum ca déwén sa nag di atum la ko jébbal nag dëkk bii nga xam ne ni Sëriñ Touba Seexul Xaddim nag moo fa nekkoon itam nag di Mbàkke Baari Jolofa Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di ko xamal ne sëb nag mi ngi ci atum 1964 lu ko jiitu Cheikh dul faadal Mbacke nag demoon na fa ci dëkk boobu nag di Mbacke Baari Jolofa ginnaaw bu mu eggee nag ba xoolaat nag dëkk ba xam na itim nag fii nag la ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag déparé woon ngir dem nag wujji tubaab bi ci atum 1895 Cheikh dul faadal Mbacke nag ginnaaw bu mu nemmeekoo jee nag Mbacke Baari Jolof nag la dellusiwaat nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ginnaaw bu mu egsee Touba nag ay fan yu néew nag lañ ca teg mu woolu woon nag Sëriñ xamal ne sëb cër nag laa la bëgg jox nag damaa bëggoon nag nga dem nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Baari Jolofa dëkk boobu itam nag ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul fa la jóge woon nag dem nag ci géej gi soo fay dem nag nga dem nag ba ci dëkk bii nag di Sagata soo rombee Sagata tuuti nag sama rutu oto yi fi mu jàdde woon nag jëm Mbàkke Baari Jolof nag da nga ko gisa soo demee itam nag nga topp nag yoonu oto yi nag ba egg nag ci dëkk ba soo eggee itam nag ci dëkk ba nga xool ko nag bu baax a baax a baax nag loo fa gis itam nag soo ñëwee itam nag nga nettali ma Yoro Mbàkke nag di dem mi ngi ànd ak nag taalibeem bu ñuy doon wax nag sëriñ Ahmadou Seck ak taalibeem bu ñu doon wax nag sëriñ Mbagnick Ndiaye ak ñeneen nag ñu mu àndaloon bi ñu wéelee nag ndigal li leen ma Cheikh dul Fadal Mbàkke joxoon bi ñu eggee nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari jolo Jolofa ginnaaw ba mu xoolee nag ba gis jàkka ja nga xam ne nii ca la sëriñ Touba Seexul Xadim nag doon jullee ba mu wàqee nag fa tolloog jàkka ja aw xeeru dënn itam nag la fa jëlee woo xam ne nii wax nañ ne bind nañ ca nag ayatul kursi yu mu xoolaat itam nag kër ga fa mu tolloon yendu fa dem ñibbisi yëgal cheikh mamadul faadal mbàkke daal lam fa gis wax ko ko mu dul faadal nag di ko xamal ne nag dëkk baa nga noonu bi mu fa nekkee nag ci atum 1964 ci atum 1965 ba cheikh mamadul faadal mbàkke nag ñëwaatoon na fa ci dëkk boobu nag di mbàkke baari jolo seeti nag rakkam sëriñ cheikh coro mbàkke bari na itam nag ay góor yàlla yoo xam ne ñu itam nag sëriñ cheikh coro mbàkke nekkoon na fa ak ñooma ñu mën caa ràññee sëriñ ahmadou sekk sëriñ mbañik njaaya sëriñ cheikh njaay xujja sëriñ daam ture sëriñ muudu jóopa Ibrahima Faye sëriñ Modou Silla sëriñ Daam Silla sëriñ Mambay Mbàkke sëriñ Cheikh Joreel Mbàkke nag di doomam sëriñ Ceerno Ñang sëriñ Jiili Mbàkke sëriñ Cheikh Gaawaan Mbàkke sëriñ Modou Mbàkke ak sëriñ Alla Silla ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo ngi fa nekkaloon ci soxna yi nga xam ne ni nag ñoo jiitu itam nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolof soxna Maam Busa Mbàkke moom sëriñ Modou Jee Mbàkke wax na ne bi sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag di dem nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolof fa moom mooy soxna sum njëkk a àndal ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari baari jolofa mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di mbàkke baari jolofa di yar di jàng ak di jàngale fas yéene wéyal nag ndigalul magam ma mu dul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke moomu nag faboon na ay doom yi boppam jébbal sëriñ cheikh coro mbàkke ñu mën cee ràññee sëriñ cheikh ummi mbàkke mii fi nekk ak sëriñ tàkko mbàkke yoraatoon na itam nag ay doom doomi magam ñu mën cee ràññee sëriñ basiiru mbàkke moom sëriñ cheikh gaawaan mbàkke moom sëriñ cheikh absa mbàkke sëriñ maam balla mbàkke moom sëriñ cheikh gaawaan mbàkke moom sa tub cheikh mamadul faadal mbàkke bii ñuy wax sëriñ cheikh ummi moom sëriñ saaliwu mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu mu yoroon ñoo xam ne nii itam nag moo leen yar moo leen jàngal dëkk boobu itam nag di mbàkke baari joof itam nag def na fa itam nag lu am solo mbooleem doomu sëriñ tuubaa seexul xaddim yi mu wóolërante woon itam fekk nañ ko itam nag ci dëkk boobu nag di mbàkke baari jolo Mouhamadoul Bachir moom Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke itam nag moo ko tegoon kër ga Serigne Touba Cheikhul Khadim dëkke woon moom itam nag moo ko dëkkewaat itam nag féetewoo ko màggal gii ñuy màggal itam nag muy fukki fan itam nag ci weeru août màggal googu itam nag moo ko sos ci xilaaf ak Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke ci atum soo delloo nag ci marsiya bi nga xam ne nii nag Ahmadou Bass nag defal na ko ko mag ñuy xamal nag Serigne Cheikh Thioro naka la Serigne Fallou Mbacke def nag ba jot nag ci jëmm jooju ci ginnaaw nag bu mu ko laajee rakkam Cheikh Mourtada Mbacke mag ñuy nag dëkk boobu nag di mbàkke baari jolofa naka nag la ko ko cheikh mamadul faadal mbàkke jébbale bi mu egsee ci dëkk boobu nag di mbàkke baari jolofa yar ak jàng ak jàngale googu mu fa nekke woon mbooloo mi nga xam ne nii nag defar na leen fa jumaa ja nga xam ne nii naal na ko fa ñeenteelu xalifa waajuróom wi nga xam ne nii toog na ko nag di sëriñ cheikh absa mbàkke ci atum 1996 ba ci atum 2001 màggalug sëriñ cheikh absa mbàkke gi nga xam ne nii nag sos na ko ak màggalug mbàkke baari gi nga xam ne nii amal na ko lu bare bare bare daal marsiya nag bi mu defal sëriñ cheikh coro mbàkke nag ñu teewlu nag lenn itim nag ci marsiya bi ihaama hamza sin la bàyyam laqu cheikh murtadaam xadima dal koy taqoo ñooy bokku añ di bokk re di tëdd di bokk wa ñooña ñaara tëdd ca dam sa sin la seyxi fallu mbàkke dem kër amet ñëwil la fekki siyaara fa seyxul murtada yàlla laaj ko sëriñ cheikh coro def na yilla te moo di xat dëppe sañcub taif cheikh murtada jébal ko ngan gi moo tax ba sëriñ cheikh coro mujj feggoo a seyxuna na alfaadilu mus la tàggoo fukk ak yatam la ànd ak alxaaji ci ab liggéey ba nam ubbee jumaa ji ca moo maxal la sëñ ci mbàkke baari jébbal ko sëñ Cheikh Coro ñëpp maare Cheikh Fàllu Mbàkke moo ko faf rafaatal suuf sa ca mbàkke baari jox koy tegtal defar na faf jumaa ja boole kër ga ci ndigalal Cheikh Fàllu Moori Garga foofee la Bamba xëye woon fa baari tabbi ci géej li xidmatil muxtaari foofee la sax di tarbiya ak di jaamu saxoo liggéey di def la yàlla taamu ci xaama waktasin la wuutu baayam ba xaama laktasin mu fekki baayam ci xaama maktasin la wooteeg màggal ñaar fukki fan ciw kor yi mooy ku dëggal bisub sëriñ Cheikh sa moo ko woote mbakkeem bu soobee wujje duñ ko wuute mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di mbakke baari jolofa foofu ak dundam nag yamale ko nag ci kër ma Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke képp ku fi nekkal Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke sëriñ Cheikh Absa Mbàkke nag jox la boppam moo sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke Falilu ba Lamine Baara Mbacke Falilou ci xilaaf ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke Falilou itam nag la génnee àdduna ci atum 2001 mu nekkoon nag ku jaxasoo ak mag ñi toppoon ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul la doon na xoole Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Makka tudde na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke dooma digganteem ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke diggante la nag bu yaatoo yaatu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo sàkku nag ci rakkam Cheikh Mourtada Mbacke ngir mu jébbal ko nag seexandoom bii ginnaaw bu mu jotee nag ci doomu Serigne Cheikh Absa Mbacke bi moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Mbàkke lu bare bare bare bare bare nag ci dunduk sëriñ Cheikh Thioro Mbàkke doomu Cheikhul Xadim bii nag moo ko ci def moo ko joxub dëkk moo ko tarbiya moo eggale am njàngam moo ko taxawu ci moom itam nag la desoon yaakaar ko ba tax na itam nag ndigal lu bare bare bare bare ma mu dul Fadal Mbàkke nag jox na ko sëriñ Cheikh Thioro Mbàkke Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke itam nag seede na itam nag ci lu takkoo takkoo takku ci doomu sëriñ Cheikh Absa Mbàkke bii bi doomu Mbàkke nag mu mag ma Cheikh dul Faadal Mbàkke itam nag moo waxoon ci mbooleem taalibe yi nga xam ne nii nag sëriñ Cheikh Oumy Mbàkke itam nag bàyyi woon na leen fi bu ñu dem fenn nañ dem nag seeti sëriñ Cheikh Coro Mbàkke itam nag te jox ko seen bopp kër gi nga xam ne nii nag sëriñ Cheikh Oumy Mbàkke itam nag moo ko fi bàyyi woon ma mu dul Faadal Mbàkke itam sëriñ Cheikh Coro Mbàkke mi itam nag la ko jébbaloon ngir mu nekk itam nag kër boppam kër gi itam nag moo nekkoon kër sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi booba itam nag nattaguñ dëkk bi ginnaaw ñu nattee dëkk bi la Cheikh Mamadul Faadal sàkku itam nag si sëriñ Cheikh Thioro Mbacke itam nag mu ñu fob kër gi nag jox ko boroom dër bi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag toxal sëriñ Cheikh Thioro Mbacke yóbbu ko nag ci marché Ocass ci wetu nag fi sareeti bàyyi laa di nag di gaare kër googu itam nag la ko jébbaloon ci kër googu itam nag la génnee adduna Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag foboon na itam nag ak njabootam wala lenn itam nag ci ak njabootam jébbal ko sëriñ Cheikh Thioro Mbacke mi itam nag ngir mu yar leen ñu mën cee ràññee sëriñ Cheikh Oumy Mbacke ak sëriñ Takko Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag waxoon waxoon na jar baatam sëriñ maxtaar silla saa boo demee itam nag ba noppi maa gisa na nga dem seeti nag sëriñ cheikh coro mbàkke te def ko nijaay te di ko roy ak di ko topp tax na bi sëriñ cheikh coro mbàkke génnee àdduna ci atum 2001 bi sëriñ maxtaar silla nag jaale seen ak njaboot gi mi ngi leen doon xamal ma mu dul faadal mbàkke sama nijaay ja itam nag lii la ma dénkoon loolu itam nag moom laa sàmmoon itam nag ba ñëw itam nag jaale si ko sëriñ cheikh coro mbàkke itam tudde na cheikh mamadul faadal mbàkke doom tudde na waajuru cheikh mamadul faadal mbàkke doom di soxna awa busoo yoonu sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke la jàppe woon nañ ko rakk sëriñ Cheikh Absa Mbacke ak sëriñ Touba Cheikhul Khadim itam nag ñoo bokk Mamor Anta Sali Mbacke sëriñ Abdou Khadir Mbacke itam nag kasaalika ñoom ñëpp itam nag daanañ ñëw itam nag kër sëriñ Cheikh Coro Mbacke itam nag di ko seet si sëriñ Abdoul Khadir Mbacke moom sëriñ Cheikh Coro Mbacke itam nag tudde na ko doom sëriñ Jiili Mbacke moom sëriñ Cheikh Coro mi ngi fi te sëriñ Abdou Khadir Mbacke ibnu Khadim Rasoul nag la ko tuddee sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ñoom ñaar moom dañoo jaar fu bare bare bare bare bari ci bi fi sëriñ Touba Seexul Xaddim nag di doog a bàyyi ko ba tax na itim nag ay soppe lañ ak i xarita sëriñ Touba Seex Saaliyu Mbàkke itim nag seedeel na ko njabootuk sëriñ Seex Coro Mbàkke gi di leen xamal ne maag seen waajur wa duñu woon ñaar kenn lañ woon ci xilaaf ak sëriñ Touba Seex Saaliyu Mbàkke moom itim nag la génnee àdduna ci atum 2001 sëriñ Soye bu Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasuul seedeel na njabootuk sëriñ Seex Coro Mbàkke di leen ne seen waajur wa murit saadeex la ñun njabootuk sëriñ Touba Seexul Xaddim gi da moo ñu sagal Cheikh Murtada Mbàkke moom ñoom ñaar moom dañ leen a jéllalee ndax ñoo bokk wenn wenn wu ñu nàmp muy soxna faati tuuti jóopa te cheikh murtada mbàkke itam sàmmoon na loolu ba tax na nag bi muy jàng fépp fu mu masaa nekk sëriñ cheikh coro mbàkke itam nag mi ngi woon itam nag ci wetam tey sëriñ cheikh coro mbàkke buñ koy tudd di tudd cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh murtada mbàkke itam nag moom moo tax ndax mu dul faadal mbàkke nag bi muy sàkkoo jot ci sëriñ cheikh coro mbàkke cheikh murtada mbàkke itam nag la ko laajca bi mu génnee àdduna itam cheikh murtada mbàkke itam nag moo sàkku itam nag ci doomam sëriñ abdul akim mbàkke ngir ngir mu taxawu nag waajuróom woowu nag di sëriñ Cheikh Coro Mbàkke fépp fu mu masaa nekk itam ñoom ñaar itam nag daawuñu réeroo daawuñu ko ndax booleb Seexul Xaddiim moo ëpp lépp njabootu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim gu jigéen gi soxna may Maymunatu Mbàkke Kubra moo nekkoon ab jigéenam bépp soxna nag bu mu dëkkoo woon soxna Maymunatu Mbàkke Kubra itam nag moo ko wàcce ganeen njaboot gi itam moo xam soxna Moomi soxna Musli soxna Mbeen ba ci soxna Maymunatu Mbàkke soxna Faati soxna Maam Busa nag na ne ñoom soxna yi nga xam ne nii nag ñoo nekkoon soxna yi sëriñ Cheikh Thioro Mbacke lépp loo xam ne nii mas na leen a dal njabootuk sëriñ Touba gu jigéen gi nag ñooy ñëw taxawu leen nag ba ñu jóge ca kon xamoon nañ seenub cër te daa nañ ko jël soxna Assu Gaawaan Mbacke bintu sëriñ tubaa Seexul Xadim sëriñ Cheikh Thioro Mbacke itam nag foboon na doom ju ñuy wax soxna Seynabu Mbacke joxoon ko ko nag ngir mu yar ko noonu mu amee woon ak jaxasoo nag ak doomi ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul yi murit gi boo delloo ba tey nag ci marché bi nga xam ne nii nag Ahmadou baas itam defal na ko ko mag ñuy xamal itam nag relation bi mu séqoon ak yoonu murita moo xam njabootug Serigne Touba Seexul Xadim gu góor gi wala njabootug Serigne Touba Xaadim Rasul gu jigéen gi ñépp daal la Serigne Cheikh Coro Mbàkke nag amaloon ak jaxasoo ñu teewlu nag li ci Ahmadou baas wax nag ci marsiya bi nekkoon na ràññee ci jokkook bokk te fonk ak taalibe xam ak bokk amoon na wëlla rek njabootu Bamba baayam ba moo di magi Cheikh Massamba Cheikh Amdi Moustapha ak Serigne Bassirou amoon nañu wóllëre mooy kabiru wa seyxuna abdulahat soppeem la cheikh abdou xaadir nee murid saadix la sagal na waa kër Bamba cheikh soxaybu moo seere loolu kooka xam na xaybu wa na saalixu ak cheikh murtada mu nampandool ku nekk am na ca rida sàmmoon na wëllëreem ca soxna faatija ak soxna may muuna tur moo xam daraja ba soxna mbay wàcceel ko ñaari soxnaam Maymunatul Kubra xarit ba neel na xam maam soxna muuminatu daana ko gane ak soxna aminatu kooko du gone ak kóllëreem ak soxna asu gaawaan sàmmoon na lépp war na mbakke gaawaan ahmadou baas xamlul li ngay lim doy na mbirum sëriñ Cheikh Coro mbakke rëy na mënee su ko misaal ci ay xasidaa loo wax waxit du teemu des masida mu nekkin na ku yéeme moom doomu sëriñ Cheikh sa Mbàkke bi ba tax na itam nag kiimaan yu baree baree bari nag def na ko nag ci ak dundam am na benn bis nag mu xëyee këram dem seeti nag sëriñ Daam Mbàkke moom sëriñ Moodu Jee Mbàkke di ko xamal ne tey ji daal Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag moo ma wax ne jógal faj nag soxlay jaam ñi moo taxoon nag ma tàmbalee nag ci sa kër gii ginnaaw bu mu fa toogee ab diir nag la jóg Daam moom sëriñ Moodu Jee Mbàkke di wax doomam sëriñ Abdou Latif Mbàkke na gunge sëriñ bi wala jógal nag ànd ak sëriñ bi ginnaaw bu buñ doxee nag ab diir laam am mbooloo nag mu ko kar mu taxaw nag di wax ak ñooma am kenn nag ku ko fekk nag ca mbooloo ma di ko xamal ne daal xanaa kii nag du sëriñ Cheikh Thioro kii daal daf leen di tardeel dong nag ka waxoon wax jooju nag ay jéego yu néew nag la dox nag xel mu manqué nag dal ko ba ni mu génnee àdduna matadi googu nag ci la génnaale àdduna am na ku ñuy wax sëriñ Alla Silla ci dongaam yi nag la bokkoon taxawal na kër nag diir bu yàgg yàgg mu ñëwee nag yëgal ko nag Coro Mbàkke ginnaaw bu ko sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag dafalee ay ñaana la tàmbalee am nag njaboot nag gu toog doom jëm ci njëkk am ginnaaw bu mu ñëwee nag yëgal ko sëriñ bi sëriñ Cheikh Coro nag mi ngi ko doon xamal ne bala nga maa tudde kenn tuddeel mu dul Faadal Mbàkke mi nga xam ne ni nag mooy sama lépp ba tax na nag kooka itam nag ab taawam mu dul Faadal Mbàkke nag la ko tuddee ci ñaareelu doomam nag lay doog a tudde sëriñ Cheikh Coro Mbàkke moom sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag am na ay soxna nag yu dëkkoo woon ci biir soxna yi mu dëkkoo woon nag ñu mën cee ràññee nag soxna doomu sëriñ Afiya Buso moom sëriñ Mbusoobe Buso mook soxna Buso Buso nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee soxna Ummi Mbàkke sëriñ Cheikh Jooreel Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke moom sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag yoraatoon na baneen soxna muy ku ñuy wax soxna Assu Jeng soxna Assu Jeng mi nag doomu sëriñ Abdou Batoor Jeng la sëriñ Abdou Batoor Jeng nag ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ci la bokkoon mook soxna Assu Jeng nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee soxna Maymunatu Mbàkke ak soxna maam ami mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ cheikh coro mbàkke muy ku ñuy wax soxna maam ummi jeng soxna maam ummi jeng mii ba tey doomu sëriñ abdu batóor jeng la bokkoon itam nag ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul ginnaaw bu soxna assu jeng génnee aduna lañ ko jébbalaat nag soxna maam ummi jeng mii mook soxna maam ummi jeng nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee sëriñ cheikh gaawaan mbàkke sëriñ moodu mbàkke soxna maam absa mbàkke ak soxna jaaratullaahi na baneen soxna nag moom sëriñ cheikh coro ñuy wax soxna maam Busa Mbàkke doomu sëriñ Moodu Jee Mbàkke la mook soxna maam Busa Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Jiili Mbàkke soxna Ami Kolle Mbàkke soxna Saynabu Mbàkke ak maneen soxna Ami Kolle Mbàkke ak ku ñuy wax soxna maam Awa Mbàkke ak baay sëriñ Mbàkke soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yi itam nag la ci am mu wéy nag topp nag ci ginnaaw Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke di ko xoole na Xaadim Rasuul la mook Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag jaar nañ fu bare bare bare bare bari mu nekk itam nag ku gëm Cheikh Mamadul Faadal Faadal Mbàkke Cheikh Mamadou Faadal Mbàkke itam nag defoon na ko rakk defoon na ko itam nag xarita tax na daara ju Cheikh Mamadou Faadal Mbàkke masa taxawal Serigne Cheikh Coro Mbàkke mi nag nekkoon na fa jëwriñ moo xam aaliya moo xam bogo ba ci daara ji mu amoon nag ci ñànka taxawaayu mag ak rakk jooju ñu ànde woon nag ak Serigne ak taalibe moo waral itam nag Serigne Cheikh Coro Mbàkke nag tudde na Cheikh Mamadou Faadal Mbàkke doom Cheikh Mamadou Faadal Mbàkke itam nag moo ko jox Faadal itam na ci mbooloo mu takkoo takkoo takku nag mu ko yaak yaakaaroon mu leen di xamal ne booleen naa leen nag sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag muy seen jëwriñ mu nekk nag koo xam ne nii itam nag loo ko naxe nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag mu nangu nekk itam nag nitug suñu boroom kiimaan yu baree bare itam nag mu def ko ci kaw suufa ku ko xam itam xamee ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacke sëriñ Touba Cheikhul Khadim itam nag def ci moom kiimaana toog na nag toogaayu waajuram sëriñ Cheikh Absa Mbacke mu nekk itam nag ñeenteelu xalifa sëriñ Cheikh Absa Mbacke ci atum 1996 ba ci atum 2001 li ñu tudde màggaluk sëriñ Cheikh Absa Mbàkke itam nag moo ko sos mu jàpp ko nag ñaar fukki fan nag ci weeru korite dëkk boobu ko seex dul Faadal Mbàkke jébbaloon di Mbàkke Baari Jolof te Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim nag jóge woon fa dem ca géej gi naal na fa jumaa itam defaraat kër ga dundalaat dëkk ba defar fa nag góor yàlla yu bare bare bare bare aaju ju ko nit masaa fekke mu faj ko nag ci doole seex dul Faadal Mbàkke mu nekki nag ku bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg nag lépp lu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim am moo xam njaboot gu góor gi ci njaboot gu jigéen gi soppe nag bu sopp xaadim rasool la tax na mboolem njabootu sëriñ tubaa seexul xadim gi seedeel nañ ko nag ak murit saade xam moo xam sëriñ tubaa cheikh abdou xaadir mbàkke ba ci sëriñ tubaa cheikh sohin bu mbàkke yar ak jàngaleeg bëgg sëriñ tubaa yitte ju waaye am nag mu fajal la ko ci lool daal la sax ci dëkk boobu ko ma mu dul faadal mbàkke dëroon di mbàkke bari jolofa ba ni mu génnee àdduna sëriñ cheikh coro mbàkke nag mu ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci kër gi mu amoon nag ci marché occas fi tolloog nag sareet yi jëm kër bàyyi àllarba ñaar fukki fan ak ñett nag ci maamu koor ci atum 1422 ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fan ak ñett nag ci maamu koor ci atum 1422 ci gàddaay gi dëppoo mercredi 12 septembre ci atum 2001 mercredi 12 septembre 2001 ginnaaw bu mu génnee àdduna lañ ko yëgal nag ki nekk nag ci bopp kër nag gi mu yaakaaroon di kër cheikh mamadul faadal mbàkke di cheikh mouhamadou lamin baara mbàkke nag mi toogoon toogaayu cheikh mamadul faadal mbàkke yëgal ko nag magam ja sëriñ touba cheikh saalihu mbàkke mi toogoon toogaayu xaadim rasool yëgal ko nag nàmpandoom ba di cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasool cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasool moo sàkku nag ci doomam sëriñ abdul hakim mbàkke moom cheikh mamadul bachir mbàkke ngir mu jullee nag sëriñ cheikh coro mbàkke nag di waajuram sëriñ cheikh coro mbàkke nag ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi ginnaaw bu mu génnee àdduna nag moom doomu sëriñ cheikh absa mbàkke bi sëriñ moxtaar silla moom soxna mariama kunta moom sëriñ tubaa xaadim rasool ginnaaw bu mu ñëwee nag ci nag di leen jaale si mi ngi doon xamal nag sëriñ cheikh joreel mbàkke ak mbooleem njabootug sëriñ cheikh coro mbàkke gi di leen xamal ne daal ñaari dëj daal laa masa dem nag ci kaw suufa benn bi nag mooy sëriñ maamur faa ñang bi ci des nag mooy sëriñ cheikh coro mbàkke mii mu dul faadal mbàkke nag di sama nijaay moo ma xamaloon ne ma saa boo demee nag ba noppi maa gis la nga jàpp nag ci sëriñ cheikh coro mbàkke def ko nijaay muy sa nijaay kóllëre googu ma cheikh mamadul faadal mbàkke boole woon ak mooma ñu bokkoon nekk itam nag ci ron cheikh mamadul faadal mbàkke laa sàmm ba tey jii nag bisam bi nag di ñaareelu dëj nag bu ma mas a fekkee soo delloo nag ci marsiya bi nga xam ne nii sëriñ alaaji njaay seex ndindi di doomu sëriñ cheikh njaay ndindi sëriñ cheikh njaay ndindi nag bokkoon itam nag ci mag ñi nga xam ne nii cheikh mamadul faadal mbàkke nag moo leen yar seede na nag lu baree baree baree baree bari ci wóor la réew waajuram woowu moom alaaji njaay seex ndindi nag soo delloo ci marsiya bi mag ñuy wax nag dunduk sëriñ cheikh coro mbàkke melokaanu sëriñ cheikh coro mbàkke jikko ji nga xam ne nii sëriñ cheikh coro mbàkke daal Fadal Mbàkke ni mu nekkee nag sëtub maam maaram ba pare nag jël léppam nag topp nag ci ginnaaw magam nag mu mu dul faadal Mbàkke ba lépp loo xam ne nii daal da ko koy naxe nag ci mu mu dul faadal Mbàkke mu nangu ko lu yaatoo yaatu daal ci ay jikkoom lañu ñu alaaji njaay nag Cheikh Ndindi nag di ñu xamal ci marché nag bi mu defal Serigne Cheikh Coro Mbàkke nag ñu teewlu ko yoonu murid déglu leen ma jooy fi tey yaaram bu ñëpp xam ci lu baax moom mooy sëtub maaram fa seyxunaa Cheikh Coro xatkaana saawrahin tey jéem a wax ci jikkoom lul kenn xamul maasam moo yaatu woon moo tabe doonoon murit bu dëggal ak taalubee ma nëbboon ni mbokke ak maaram déglul ma wax la bu wér fi mbokke ak sang yi seen maam ju baax dañu xam ca moori maam maaram Cheikh Absa mooy wajuram ibnu Muhammadu moom xabibu rabbi yi ci siiw lool ci maam maaram lu ñëpp am am na ko da ko jëloon jënde ko ak taalibe moom moo taxoon doo gis ku gis maasam barrun taqiyun xalimun aabidun sanadun gëm yàlla lool xam ko lool ca nangu ak njaamam saaxat sajaaxatuhu sarxan waxar ban demal ba ndindi ak boo ko yow nga laajte njàmbaaram moom daa bëggoon sëriñam gëmoon ko lool ci lu wér Cheikh Fallou mooy sëriñam booy tudd gis xaalam ajjana ndeem oto la wala saxaar mbaa bato giñ naa ne moom dafa teeloon a matal moom daa saxoon ci lu baax di digle jëf ju baax tereb safaan bañ ko lool ku ñëpp yem mbaaxam lewet sawar néewi wax ngir bàyyi xel ci boroom xaras ki moom asamaan bind ñu ñuy jaamam xat xaada fi lu baax bahri ba génne wurus di teg taleet fa mu ne ca mooy ko gëm xaadim xat la yutlabu moo tax ma jóg di ko way ngir nag mu may ma ci tuut ma nekk ab yaaram woowa sujaaxul la si ku nekk xam aw fitam man kaana saa issatin yéem nga ko ci mbaaxam moom ku ko xam naw nga ko kum jaxasoo li yéem nga ko seex fàllu daal la bëgg woon moom la defoon paalam faale wutoon àdduna ko mii ci biir ku ko yor xàmmeewul ak ab faxiir bu ñëpp xema alam daagore woon yaatu lool lewet sawar tadu mer xanaa nga def lu wër kon da nga gis xaalam waxuwal karimul la si jallat karaamatuhu texeel na mbooloo ñi gëm safalu mi waayam ñun ñëpp nag war nañoo sant ne kii ku ko xam ku xam ku xam ku ko xam firdawsi mooy néegam inni la askuru rabbi ak i biir moom mi ma may wile way ma way ko bi yaaram ak taalubéy li gënal Cheikh Bamba loo mën a gis kii nag de moom la jëloon far def ko takkaayam moom na meloon gisuma ku gis ku gis ku ni mel giñ naa ne moom li ma xam mooy raw naag maasam man mii de man li ma xam ñee naa ko lam doonoon muy jëf ju baax moom de daana dolli ab taaram askanu mbàkke de ñoom lu baax de lañ mas a xam kuy def lu bon ku mu doon rusloo nga mam maaram moom daana sedd bu wér askan wu baax wi mu ne lu baax bu doon kafe la teel naa jëlu kaasam jaal naa ko seex jooreel ak mboolem ku topp ci moom xam leen ne kat sas na leen xool leen ni angaaram ataala rabbul anaami xumrukum ci lu baax ngeen roy ci moom bañ a xool kuy bay fudul waaram askan wu baax ku ci ne yow def lu baax la war lu weex bëggul tilimal roy leen ci maam maaram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 Cheikh Thioro Mbacke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tuddee ak màggal bis bii Serigne Touba Cheikhoul Khadim nag déparé woon nag ci Mbacke Baari Jolof di dem nag ci Ndar Géej dëppoo woon nag fukki fan nag ci mois de août nag ci atum 1895 bis boobu nag saa bu delsi waatee ci at mi mbooleem njabootug nag Serigne Cheikh coro Mbacke gi danañ delluwaat nag ci Mbacke Baari Jolof fàttaliku nag bis boobu Serigne Touba Cheikhoul Khadim déparé woon ci bis boobu nag di wujji tubaab bi nag ci Ndar Géej bis boobu itam nag lañ jàpp nag def ko ak màggal bis bi nag Serigne Cheikh Cheikh Coro Mbàkke nag ci boppam moo ko jàppaloon boppam demoon nag ci magam Serigne Touba Cheikh Saliou Mbàkke laajoon ko ci ndigal Serigne Touba seex Saliou Mbàkke itam nag rafet rafetlu woon na bis boobu joxoon ci rakkam ji nag di Serigne Cheikh Coro Mbàkke ndigal itam nag ngir nag mu koy fàttaliku ci dëkk boobu nag Serigne Touba Cheikhul Khadim déparé woon bis bi nag ñi ngi ko tàmbali ci atum 1999 ci atum 2001 nag bi fi Serigne Cheikh Coro Mbàkke bàyyi ko Serigne Cheikh Absa Mbàkke ñu gën koo xam nag ci Serigne Cheikh Joreel mi ko wuutu nag nag bis bi nga xam ne nag ci la sëriñ Touba Seexul Xadim déparé woon nag ci dëkk boobu ñu nekkoon nag di Mbàkke Baari Jolofa di dem Ndar Géeca ngir nag ñu di ko ci màggal ñoom itam nag ñu ciy màggalaale seen waajur wi nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke màggal gi nag màggalu guddi ak bëccëg la ñuy ñaan ca sëtu Mamor Anta Sali Mbàkke ba sëriñ Cheikh Coro Mbàkke yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe